Chers internautes, bienvenue dans votre premier numéro du bulletin d'information judiciaire, autrement dit, l'hebdo du parquet. L'hebdo du parquet n'est rien d'autre que l'actualité politico-judiciaire de la semaine. Tout de suite, le sommaire. l'affaire Aydan Django l'affaire Baye Aïda Ndiongue nak wax yi bëri na ku ci nek sànni nga ci li nga xamantene mo moo sa cadeau bi ñu jógee ci affaire Aïda Ndiongue dañuy ñëw ci mbirum ki nga xamantene mo moo ci promoteur de l'ombre bi fi nekkoon di Luc Nicolaï momit danaka tribunal atena na mbiram. dañuy jeexalee ak cour d'appel militaire ci mbirum sapeur pompier yooyu loolee nak léegi léegi ci faram-fàcce Bok internet comme ni ma leen ko waxee léegi rek ci bopp xibaar yi l'hebdo du parquet mooy euh, vous faire part des informations les plus saillantes de la semaine noonee nag mbirum Aïda Ndiongue bi ci la ñuy ñëw maanaam traque des biens mal acquis te xam nañ ni semaine gi ñu génn traque des biens mal acquis bilbo occupé woon na ñi nga xamante ne di discussion yi ci koñ ci kër yi ñëpp di yee yàbbi ci mbirum 47 milliards bu l'ex sénatrice bi fi nekkoon di Aïda Ndiong mbir moomi nak ki di Fadel Barro wax na ci wayé da ko jaarale ci mbirum médiation pénale ndax wax nañu li tax dëkk bi nga xamantene mo juk ci deuxième alternance am war am rupture di jëfee li nga xamante médiation pénale Fadel Barro nee na moom mbir moomu bett na ko rawatina nag ci gémmiñu nga xamante la président de la république Macky Sall noonee nag ñu déglu Fadel Barro ci micro Charles Faye avec notamment une sortie des gens du pouvoir voulant en tout cas aller vers des médiations tamit. jamono actualité bi li ko sookee mooy euh, lu bëri li jëm ci ñi yor nguur bëgg a dem ci ay waxtaan bu médiation pénale Lolu dafa di loo xam ni ñun rafetlu wuñ ko benn yoon ndaxte bokkul dara ci li jëm si wàllu principe maanaam li xel mën a nangu. impunité nag muy euh, ñàkk teg daan ki nga xam ni dafa jàdd yoon du yoon ci kanamu ak gis-gisu euh, sénégalais yi. deuxième alternance li ñu li ñu taxoon jóg dëgg-dëgg mooy euh, génn ci doxalin yu ñaaw yooyu lee looloo taxoon ñu jóg ngir gën a taxawal démocratie sooke ko ak li nga xam ne mooy transparence lépp lu lëndëm ñu leeral ko médiation nag dafa di article bu bokk ci code pénal naam waaye médiation boobu lay euh, bu ñu koy wax dafa war a fekk nag ñu situer xam kan moo def kan moo jël ak kan moo lekk ak kan moo lekkul bu ko defee ñu jéem a xool naka la ñuy jubluwee ci médiation boobu waaye li nga xam ne moom la ñuy rek mooy ni njiitu réew ci boppam moo jiitee mbir moomee di wax waxu médiation pénale li jëm si wàllu mbirum Aïda Diong ak Karim Wade nag du yoon sénégalais lambda bi nga xam ni dafa sàcc nen mbaa mburu mom ñu jël ko ne ko ràpp ci kasso gi Aida Ndiongue mom wala keneen ku sàcc ay milliards ñuy jëmal euh, waxtaan ak mom bu juboo dafa di lo xamni bokul ci suñu xex suñu xex moy rupture ak transparence kon Aida Ndiongue waruñu ñu ko jël te ko ci kaw benen sénégalais diko jox ay privilèges yoo qui n'ont pas de pouvoir de lobby sur lui et c'est pour ces gens-là qu'ils doivent travailler ils ne doivent pas travailler pour ces lobbies-là ou bien c'est quelques privilégiés qui ne font pas 1% de l'électorat Charles Faye ñu ngi lay jaajëfal ci taataanu kàddu bi léegi rek ñëwaat ci ñi nga xamante avocat yu kii di l'ex sénatrice libérale bi Aïda Ndiongue moom avocat wam yi nag yéy nañu yàbbi ci mbir mi ndax xamle nañ ni tribunal li mu dogal ñoom ànduñu ci ba tax na di procureur Bassirou Gueye tamit ni mu def tegu ko ci yoon lolé la maître Mbaye Jacques Ndiaye xamle maître Mbaye Jacques Ndiaye nak ñu déglu ko ci micro ki nga xamante ne moo di Arouna Fall lorsque les droits d'un justiciable tenant nit ki bu demee ba xam ñu koy tuumal di yàq deram kooku am na sañ-sañ di yóbbu ki nga xamante ne mooy yàq deram ci yoon loolu mooy li ko war te ñun dañ koy yóbbu ci yoon ki nga xamante ne mooy procureur de la république ndax lu mu wax dara nekkul ci dëgg ki nga xamante ne mooy Abdou Latif Kulbali, bu fekkente ne am na lu muy wax mooy wax li nga xamante ne mooy projet de développement yi yi état di def

Elle est en train d'être rédigée. Nous sommes en train de réunir tous les éléments qu'il faut en vue de la déposer. Je bien mal ak yi la ñuy des batailles tey dem seeti ki nga xamante ne analyste politique bi di Barkaba nekk directeur de l'information euh, télévision Futur Média Mon Barkaba nak ñëw nañu xamle ñu li nga médiation pénale nit ñi daan ko def ba noppi wax ci mbiru Aïda bi ak procureur Bassirou Gueye Petit avocat ou ki nga xamante ne moo di sénatrice Nous ñu dégg euh, Barka Ba ci micro IGFM. Barka gannaaw bu ñu la nuyoo yow ngay euh, euh, directeur de l'information TFM. gën la ràññee tamit ci wàllu analyse politique léegi tey wa IGFM daal la seet si rek ngir nga mëna wax internautes lan moy médiation pénale d'abord waaw jërëjëf soxna si euh, médiation pénale euh, bat la boo xam ne ci ñuy def euh, seen seen xam-xam màcc ci yoon ci ni nga xamee woon balaa mbir mi di fës mooy maanaam maa yow ñu ñu am problème bu ñu bu ñu boolee ñu war a dem tribunal dem ci attekat bi attekat bi par exemple ñu ne yow dam la amel xaalis wala yow nga ameel ma xaalis en général si affaire lu ñuy wax escroquerie moy nax kenn dal di lekk xaalisa eh, ngeen dem ci kanamu attekat bi procureur bi am na sañ-sañ eh, bala muy tëj wala di joxe atte mu dal di ne diw comme yow kii dafa la tuumaal ne da nga koy ral xaalis suñ demee ba gis ne loolu am na ñu ne moom mun na leen proposer li ñuy wax médiation pénale bat bi nag dafa gën a ci bu commencé wax Euh, mbiru traque des biens mal acquis te président Macky Sall bi mu jëlee nguur gi ba léegi mu nekk loo xam ne daf ko fësal bu baax ci programme am loolu nag dafa indi jiixi jaaxa ci ay juristes yu bëri am na ñu bëri ñoo xam ne nanguwuñu ci lu mel ni lu ñuy wax créé yi wala traque des biens mal ak ñu mun cee def médiation pénale. léegi tamit ci actualité yi ñu génn nii semaine yi ñu génn gis nañ ni yi ci gën a séant bokk na ci euh, affaire Aïda Ndiong. Hmm. affaire 47 milliards yi. Hmm. moom Aïda Ndiong nee nañ dafa am ci comptam ak lépp lu ñu dajalee ci turam. Hmm. toll na ci 47 et quelques milliards. procureur Bassirou Gueye génn wax ko. ñii di avocat Aïda Ndiongue yi jàpp que ni moom warul ko def li mu def dafa violer secret instruction yi. Mm-hmm. donc yow loolu naka nga jàngatee loolu. waaw loolu ku nekk ak sa gis-gis ci ci mbir mi xam nga euh, mbiru Aïda Ndiongue dafa nekkul mbir mu ndaw d'abord ci personnalité Aïda Ndiongue Aïda Ndiongue euh, dafa yàgg ci paysage politique bi turam euh, fës na depuis régime socialiste ci régime Abdoulaye Wade ñu ngi ko ci doon dégg.

Euh, bëriwul ci lu ñuy dégg ne benn nit rek euh, euh, toppee nañ la 47 milliards à part peut-être mbiru Karim Wade bi ñu fi waxoon ay lu jege 700 700 milliards. loolu d'abord un mun na expliquer lu tax mbir mi nekk mbir mu fës bu baax ci ci actualité bi la deuxième chose mooy bëriwuñu aussi di gis procureur di def point de presse mais loolu amul benn charte ci mbirum yoon boo xam ne tax na ko parce que procureur. pour rôlam dafa doy waar procureur moom mooy avocat wu société bi moom mooy layal société bi et euh, su fekkee am na benn mbir moo xam ne dafa fës ci espace public bi mu dem ba ñu koy wax ci kër yi mu yëngal comme ni koy waxee dëkk bi yoon la yaakaar naa ne procureur bi daal di ñëw mu communiquer sur dafa mel ni comme di ñuy jàpp euh, Cheikh Béthio Thioune gis nañ ne procureur u Thiès bi à l'époque dafa obligé dal di def point de presse loolu soo demee tamit démocratie yu mag yu mel ni ay France ay États-Unis loolu banal dañ ko banaliser ci mbirum dañ jong ay avocat moom dañoo jàpp ne euh, procureur bi dafa sori trop ci li ñuy wax euh, dafa violer li ñuy wax secret de l'instruction maanaam dafa dafa dindi kiiraay bi war a euh, muur mbirum enquête parce que suñuy enquête euh, tant que tëjaguñ le ba jugé ni la dañu war a jàpp lu présomption d'innocence té mom sax procureur Serigne Bassirou Gueye donté wax na affaire milliards yi fësal nako rappelé na toujours le principe euh, bu ñuy wax ci droit moy présomption d'innocence manam nit ki tant que atte wuñ ko ba xamné luñ koy tumal dëgg la ci mom dañuy japp né defu ko fu euh, ci ñaari mbir yi choc la entre li ñuy wax lu droit à l'information mooy euh, yelleef bi nga xam ne askan bi war na ko xaar pour mu xam fan la dëgg bi féete informé wu ci loo xam ne dafa soxal askan bi yëpp ak li nga xam ne kiiraay la bu ko yoon may mooy euh, secret de de l'instruction yaakaar naa ne nag euh, question d'interprétation la avocat wu Aïda Ndiongue ñoom jàpp nañ ne waa ji dafa Serigne Bassirou Gueye dafa violé secret boobu moom Serigne Bassirou Gueye dafa sukkandiku ci droit à l'information pour gin dindi askan wi xamal leen euh, nan la mbir mi tëdd. parce que ñu rappelé waat que ni rek yow yaay directeur de l'information bu télévision Futur Média tey nekkoon suñu analyste ci premier numéro l'hebdo du parquet donc ñu lay jaajëfal. jërëjëf. ba tey ci wàllu yoon dañuy des ak ki nga xamante ne moo di jeunesse euh, libérale di Bara moom Bara Gaye nag yoon def ko toppoon euh, ci li nga xamante ni moo di offense au chef de l'État maanaam yëkkati ay kàddu yu tegginewul euh, teg ko ci ndodd ki nga xamante ne moo di njiitu réew mi moom nag tribunal àtte na ko daal di koy daan juróom benn weeru kaso yoo xamante ne moom tëdd na ko ba noppi. leneen ci wàllu yoon ba tey ak mbirum ki nga xamante ne moo ci promoteur mburuwaa bi di Luc Nicolaï Luc Nicolaï nag yoon toppee na ko li nga xamante ne mooy mbirum drogue àtte nañ ko nag ci semaine bi ñu génn. Luc Nicolas tribunal dame na ko juróomi atu kaso yoo xamante ne ñett yi du ko tëdd daanaka ñaar yi rek lay tëdd gannaaw bi mu teudé ba nopi at ak ñetti weer ki nga xamantene modi moo di maître Baboucar Cissé di kenn ci avocat wu Luc Nicolas nak mom ñaawlu atté atte boobu nee na ci benn yoon ndax Luc dañ ko tuumal lo xamantene ne defu ko ñu téwlu ko ci micro Fatima Ba. mëna wax moy euh tribunal atte na tribunal tek nous ñaari at manam at lo xamne ñetti du duko du mais ñaari at dina ko teud te ci ñaari déjà teud na ci euh, fukki ak 15 mois de détention dañ ko ci mais ñun ñun ñu nous ñun euh, luñ ko reprocher mom daf ko weddi daf ko c'est-à-dire tuumaal weddi depuis le départ depuis Thiès donc lolu motax dañuy ñaan appel dem ci ñeneen juge ñoo ñu ñu wat mbir bi te yaakaar naa ne bu ñu ci ñeneen juge ñom buñu ñu waté mbir bi xeyna ñom ñoom nañu rendre compte que ñu ñëkke ate dañu juum parce que erreur judiciaire mën ci am te luñ mu wor moy erreur am na ci parce que Luc deful dara. Luc aussi Luc investisseur la parce que Luc luñu wax moy lamb ji ñëpp xam nañ ko lepp xam nañ ne Luc lamb ji bu éggé fi Luc mo tax te Luc day day jappalé nit ñi donc nit ku mel dañ ko dañ parce que donc investisseur la newul pour euh, pour bosam pour euh, pour affaire personnelle mom mom am daf ko ak donc nit ku mel dañ comme nit Nicolas bi ñu rek di xamal ni rek téeméeru million ak juróom fuk yo xamantene wenn walu gi Bertrand Tuli la koy jox benen walu gi nak ki nga xamantene modi moo la hôtel Beach la koy euh, ndàmpaay noonee buñu ñu ci avocat ki nga xamantene modi Luc Nicolaï dañuy ñëw ci avocat ki di Bertrand Tuli Bertrand Tuli avocat wam bi di maître Clotaire Ciré mom moom xamle na ni bég na ci ndax yoon dafa def li nga xamante ne mooy fam daan kii di Luc Nicolaï ndax liñ koy tuumaan lépp moom moo ko def ba noppi di xam ne tamit ni ndàmpaay bi ñu daan Luc Nicolaï lu ñu teg ci yoon la. ba tey rek ci wàll woowu la ñuy des ànd ak ki nga xamante ne moo fi jiite woon port autonome bu Dakar. di Bara Sady moom Bara nag yoon toppee na ko li nga xamante ne moo di détournement de deniers publics maanaam luubal alal bi ñëpp bokk. Nous nak ñing ko estimé mi ngi tollu 48 milliards Bara Sady janoog nag nga juge d'instruction bi gannaaw bi ñu ko depuis 10 euh, heures ci suba mu nekk ñom ba 19 heures ci ngoon dañu ñu tamit ak li nga euh, tribunal militaire de Dakar ñoom ñooñee nag até nañu ki nga vu ne commandant sapeur pompier di Atab Atab dañ ko top ni dafa loubal alal lu ñepp le mom and na ci kenn ki nga agent ministère des finances la woon Ibrahima Konaté Ibrahima Konaté qui yoon nako daan lu tollu ci euh, ñaari